président sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm di la wax na itam nga rafet njorto te sam dal bu baax a baax ndax bam la xamee ba fi ne dégg naa ci làmbiñam booba ñi ngi wut réew mi booba jotugoo ci sëriñ Cheikh Baara doom mi mi ngi toog bisu màggal Darou Mousty booba élection yi des na juróom benn weer te du ma ko wax lu amut ndax xam naa li ne ci bàkkaaru fen sëriñ Tuubaa nee na wa tarkunal kasiba yaa ixwaani afdalu min tilaawatil quraani kon lépp lu may wax ci kanamu sëriñ bi rek xam naa li may wax ak fi may waxe bu baax sëriñ bu wax ne ñi xëccoo de ñëpp yow la ci ëpp yaakaar loolu kon moom mii yëg na ko te boo jotu ko ci réew mi kon loolu susalu ma ko ba ca dolli ko waat tam mooy bi nga xamee ne réew mi yëngut yi bari na coow li bari ba ay bakkan des ci sëriñ bi jox ma ndigal ma yëkkati sama kàddu ba ma yëkkatee sama kàddu itam fa saasa nga daal di yónnee ndaw xamal sëriñ bi ne ko la ma jàppoon kat bàyyi naa ko ndax ndigalam lay jëfe fa saasa nga ñëw fi seere ko waxaat ko ci gannaawam loolu nag li suñ li suñu borom daaloon ci alxuraan rek mooy la la ca dal maa kaana allaahu li yazara al muminina ala ma antum alayhi xatta yamiisa alxabiisa min attayibi wa maa kaana allaahu liyudli'akum alal xabi walaakinna allaaha yajtabii min rusulihi man yashaa suñ borom dafa wax ne dama leen di seetlu ba xam gëm ngeenam déet waaye nag duma leen wax ne dama leen di seetlu ndax ba nga koy def boo xamu woon la la ca fekk dangaa jëfe ndigalam kon loola mooy li la may lii tey ba nga fi toogee ba tey itam yaa ngi góorgóorlu ci ay yitteem li nga man ndax moom ni ko waxee léegi seere ko rek yitteem weesu lislaam ak njaboot gi ak dëkkub Serigne Touba bi ci biir loole itam li nga ko ci li nga ci jëf bari na ndax fii nga ñëw nii firnde la ji diggante taw feex ba fii def nga fi ab tali boo xam ne dem na ci ñetti milliards ak genn walla ba ca dolli ko waat mooy ca Touba assainissement ba def nga ca fukki milliards yeneen tali yi nga xam ne Chine waaye nga ko doon àggale ci. at yu jëkk yi itam dem na ci ñetti milliards genn ak ay làmp yu ci bokkoon ba ca desaat itam mooy hôpital bi nga xam ne naal nga ko fa te léegi ñu tàmbali ko ñu waxoon diggante fukki milliards juróom-ñett ba ñaar fukki milliards ñett dana ko mat loole itam nga defal ko sëriñ bi yéen ju la ba ca doole ko waat itam mooy Masaalikul Jinaan ndax gis nga fa la fa sëriñ bi def nga wax ko ne ko fas naa leen jàppale ca liggéey ba. ba ñëpp gis ko moom itam lañ fay def ci wàllu ay tëli ak assainissement ak éclairage public moom itam toll na ci juróom-benn milliard ak lu bari kon yooyu yëpp di ay liggéey yu am solo ba ca di saa itam mooy autoroute bi nga xam ne bokk ne ci sa projet yi gën a rëy mu toll ci ñeenti téeméeri milliards yu tegal kon loolu wane na ne am nga yitte ci Serigne Touba wane na ne fas yéene nga yéene jàppale Serigne bi ci liggéey bi mu yeneen somb yoo xam ne. mi ngi koy bëgg a tàmbali ci dëkk ba bokk na ci assainissement bi ñuy wax eaux mooy li aju ci nga xam ne li wër jumaa ji dootu amati ay foos lépp day nekk loo xam dañ koy évacuer mu génn mu nekk projet boo xam ne ëpp na juróom milliard jëm kaw loolu itam incha allah ñaa ngi ci daanaka sotti na ci biir loolu itam danaa ci netti loo xam ne ci dëkk bi la aju mooy bi nga xamee ne président jël na dogal bu wax ne dañuy dind communauté rurale yi ci Sénégal def ko ay commune te xam ngeen ne Touba ni ni mu baaxoo doxee bokkut dëkk yi ci des mu doonoon lu jafe ndax lu marché Sénégal gépp la ñóor ci génne Touba doonoon na lu jafe coow lu bari dégg ngeen ko ci waaye bi nga xamee ne sëriñ bi wax na ci bëgg-bëggam ba ma ko ko yëgalee fa sansa dane ma na nga xamal sëñ bi ne ko ni mu ko bëgg ni laa koy defee loolu itam na ko sëñ bi bëggee woon defe na ko ni ba ca risaat tam mooy ci wàllu daara alxuraan daaw déggoon ngeen fii ay coow yu bari ñuy wax ay luwaay yu ñu war a yóbbu assemblée bi nga xamee ne wax ja bari na ca sëriñ daara ya maase defu délégation ñëw ci sëriñ bi boo gàmm gi ñetti fan a ci des daaw bi ko ko sëriñ bi waxee itam fa sansa sëriñ bi wax ma ko ba ma ko ko yëgalee fa sansa it la ne ma ko ne sëriñ bi ni mu ko bëgg ni laa koy defee ndax lu baax rek laa jubloon waaye dinaa fexe ba ñi nga xam ne ñoom la yéef yi jëm ci ñu waxtaan ci ba déggoo ci loolu itam sëriñ baa ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm bi ci mu jaat tam mooy lii ñuy wax fan yi muy ci mbirum almaaniya di mbirum laïcité bi nga xam ne moo indi coow lu bari ci réew mi loolu itam sëriñ bi bu mu ko yëgee wax na ma ko ma yëgal ko ko fa sansa la ma xamal ne neel sëriñ bi dindi naa ko ndax man lépp loo luy dëgëral lislaam la loolu laay def waaye luy néewal lislaam xalaatuma ko du jaari ci man ba leneen li nga xam ne jëm na ci yeneen luwaay yoo xam ne wax na ne waroon nañ ko yóbbu assemblée mu jëm ci wàllu euh, ñi may ci at yu néew ak yu mel noonu te am lu ci lislaam dëppwut ak fi jamono toll ndax loolu tam day am waaye loolu itam ba xamal na ma ne naa wax sëriñ bi ne moom santaani wu ko woon bi nga xamee ne am na ñu ko ñu ko ko andil ba mu ko yëgee fa sens la leen wax ne lépp loo xam ne day jëm ci lislaam daal mosoon kenn du ko laal nañ ko bàyyi ni kon nag loolu mënuñu su ko weesu kon sëriñ baa lay sant di la gërëm di la ñaalal li sëriñ Tuubaa daali woon ne képp ku ma liggéeyee suñu borom dana faj say aju nga daje moom. min min Mbakke